wa taxti fii bi nazratin taxti lana bi safar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara beneen yoon di leen baalu ci weeru koor wi nga xam ne ñu ngi toll waaw ci ñetteelu xaaj bi nga xam ne borom xam-xam yi indi nañ ne weeru koor ñetti xaaj la ñetti xaaju fukk la ñu ne fukk yi njëkk yi waaw wax nañ ne yërmande la ñu ne fukk yi ci topp njëgal la yeneen fukk yi ci topp mooy gor ñu ñu goreel ñu safara de waaw bàyyi xamal nañu ne comme ni ko alquran indee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom du moo wax ne wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yàlla indi na ko nag muy yërmande wala muy jëmi yërmande waaw ñeel xaalam bi yépp kon moom de mën nañoo njort ne moo taxawee waaw fukki fan yu yu njëkk yi de mais fukki fan yi nga xam ne moo ci topp njëggal la ñu gis na tarixa bi ñu nekk Cheikh Ahmed Tidiane moom loolu la taxawee moo tax charte tarixa bi yépp lu ci ëpp istixfaar la tàmbalee lu mel ne astafirullah azim alazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wala mu ne astafirullah rek yem ci waaye lu mën a xew mooy yoonam wi yoon la woo xam ne képp ku ko jot wala képp koo xam ne jàpp nga ci waaw da nga nekk ci yoon woo xam ne dana la jëmee ci ndimbalal yàlla nga am njëgalam de mu ne ñetteelu mujj bi nag nga xam ne fii lañ toll mu ne waaw mooy ñu goreel la safara waaw noo naka lay nit def ba gore safara yàlla wax na ne lépp danaa la ko ba mu des waaw kanamam wala nga ne jëmmam moom yàlla waaw soo fi bëggee nekk yàlla ne fii waaw su boobaa da bokk ci ñu yàlla ku nooy def nag loolu ci Cheikh Ibrahim rek nga koy amee de waaw moo tax gis nga laylatul xad euh, euh, weeru koor wi ci fukki fan yu mujj yi ci la laylatul xadari di wàcc dégg nga borom bi subhaanahu wa wax na ne inna anzalnaahu fi laylatul xadri waaw ñun la wax waaw loolu pluriel la bu ne ina ñun yaa wàcce nañ waaw laylatul xadri wala wàccee nañ alquran ci guddig laylatul xadri dafa ne laylatul xadri yi xayrun min alfi shahrin ñett yoon la indi laylatul xadri yi muy lay junju waaw ñett ñooñu ñu wax muy nubuwa wilaaya ak xilaafa mu ne ñett yooyu moom lay junju de déglul alquran mu ngi lay leeralal ne awalam yaraw ila tayrin musaqaratin fi jawi samaayi maa yamsukuuna ila allah awalam yaraw ila tayrin musaqaratin fi jawi samaayi maa yamsukuuna ila allah inna fi zalika la yaatin li xawmin yuminoon mu ne xanaa gisul jëm ci njanaaw yi ci jawi asamaan mu ne kenn teewu leen fa mu ne ki lu dul borom bi mu ne lii nag misaal laa ñeel ñi nga xam ne aji way gëm lañ de ñaareel yoon mu ne awalam yaraw ila tayrin fawqahum saafaatin wa yaqbinna maa yamsukuhuna ila rahmaanu waaw gis nga mu ne xanaa gi xanaa gisul ba tey waaw jëm ci njanaaw yi waaw mu ne ci jawi asamaan ñu def sàppe daal di ngëbante mu ne kenn teewu leen fa lu dul ki nga xam ne mooy rahmaan de waaye ñetteel bi nag waxul awalam yaraw daf ne alam tara xanaa gisoo waaw ñetteel bi foofu la ñuy gisee de moo tax mu ne inna anzalnaahu fi leylatul xadri wa ma adraka ma leylatul xadri leylatul xadri xayrun min alfi shahrin su boobaa nag tanazzalul malaayikatu wa ruuhu dana wàcc malaayika yi ak ruuhu ñu koy firi ñu ne malaayika yi mu wax mu ne ruux bi mooy jibril ma ne jibril tam ci malaayika yi la bokk waaye boo ñëwee ba ci ñetteel ba waaw ñetteeli xaaj ba foofu ngay xamee lan mooy xaqaayiq ak nisab su boobaa xadar yàlla bi day taxaw dina soo ko xamee rek da bari ci sabara dina doo ko am mukk lu dul nga yegsi ci kii nga xam ne mooy Cheikh Ibrahim moo tax ñett ñii jamono bu ne moom la yàlla di junjude mooy nubuwa ak wilaaya ak xilaafa ne wa isa tajala muhammad fi ahmadiyati mu ne tajala bi kamalihi waaye boobu danañ dinañ arrière tuuti moo tax soo demee ci dawaahir yi da nga gis tam foofu danga dem ci dawru sifa dem ci dawru ismu ak dawru zaatu da nga dem ci dawru sifa nga gis ñu def sàppee tàllalu nga dem ci dawru zaatu moom tam nga gis ñu tàllalu nga dem ci dawru waaw dégg nga euh, asmaaw tam Euh, nga gis tam mu mu dawru sifa dawru isma ak dawru zaatu yëpp nga gis leen ñu tàllalu de def ay sàppe su boobaa nag foofu lay gën a leere soo demee di nga gis awalu dawru fa aaxiru dawru sifa zaahiru dawru sifa ak baatinu si fa suñ jëloon zaahir bi rek awalu gis nga zaahiru bi nga xam ne mooy dawru waaw sifa muy yonent bi sallallahu alayhi sa sallam sayaadatu la muy sang boo demee ci ma Ahmed Tijaani zaahiram bi ubudiyatu la mooy ki nga xam ne waaw dañ koo jaamuloo waaye soo demee nag ci dëgg bi nga xam ne mooy Cheikh Ibrahim zahiram mooy ubudatu la mooy ki ñuy jaamu moo tax foofu rek la mbiri di leeree moo tax biñ fa yegg si daf ne alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fi sama samawati wal ardi kooku mooy Cheikh Ibrahim de moo tax ëwaloom ihaatatu la mooy ki nga xam ne moom moo peeg moom lay ñëwaat di juñu ne wa isa tajala muhammad fi ahmadiyati mu ne tajala bi kamalihi fa yushahidu al mashahidu ahmad na yaquluuna innahu aynu muhammad wa nafsu muhammad isma sama badallaahi xayru muhammad mu ne su fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay def tajli ci ahmad mu ne daf koy def ci kamaalam lan mooy kamaalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy sifaatul wujudul xaqiqi moom mooy ñeenti melow dëgg yi waaw dañ ko ko tëbb de waaw tëbb la ci moom waaye xaqiqa la ci yàlla mu ne su fekkee rek dafay def tajli ci ahmad mu ne daf koy def ci kamaalam suboobaa boobaa aarifiina yi nga xam ne ñoom seede nañ dañuy wax ne waaw gis nga kii de di ahmad mu ne mooy jëmmi muhammad wala mooy nafsu muhammad ginnaaw bi nga xamee ne ginnaaw yàlla muhammad amul su boobaa nag xaatiru aarifiina yi day daw de dégg nga su boobaa du am ñaar duñ gis ñett dañu gis na rek waaw fa huwa huwa wa huwa huwa laa farqu baynahuma illaa al-ittisaaf wal imdaad mu ne is huwa allazi axrajahu laahu saani isnayni wa saahibuhu sidixil akbar wa baabil madinatil hilm waasi xadaratu hiya xadaratul xadmiyatu wal katmiyatu de mu ne amul nag di gis ne su boobaa da wax ne fa huwa moom yonent bi huwa mooy Cheikh Ahmad Tijaani yi wa huwa moom Cheikh Ahmad Tijaani huwa mu ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de waaw mu ne nag amul teqaliku seen diggante ñoom ñaar lu dul na rek waxuwa kii mooy kële kii mooy kii waaw lu dul ci buñ demee ba ci tëggu yi waaw foofu nag lay amee dégg nga de teqalikoo waaw mu ne yàlla nag mooy ki nga xam ne moo génnee ñaareelu ñooñ amal bi waaw gis nga mooy àndandoor bi mooy dëgg laa kon bu màgg bi mu ne mooy baabul madinatil ilmi wax na dëgg ci zahir Seydina Aliou mooy baabul madinatil ilmi waaye nag su fekkee ne ci baatin la Cheikh Ahmed Tidiane ndaxte moom mooy aynu wilaaya te moom rek moo génnee nubuwa moom la bàyyi wax ne laa umri haza cheikh aynu wilaayati tafajjarat min bahri nubuwa saqiya moom la wax ne gis nga ko moom nag bii la xadara wa hazi xadaratu hiya xadaratul xadmiyatu wal kadmiyatu wa hiya xadaratul sayidina mawlana abil abbas ahmada bun muhammad atijaani hasaniyu da nga xadara bile mooy xadara xadmiyatu ak kadmiyatu xadara bii muy wax nii mooy xadara waaw suñu sëriñ Seex na am Ahmad Tijaani de moom lay wax ne amul dara loo xam ne dana jóge ci xaqatu muhammadiya lu dul ne ci moom rek lay jaar mu tukkee ci ësal ba ci abad de wax na ko ay ràng na ko ay maanaa waaye lim ñu bëggoon a jàngal tam mooy ne Seex na Ahmad Tijaani itam su fekkoon day def tajili ci Seex Ibrahim daf koy def ci kamaalam su boobaa xaari fii ne itam danañ seede ne waaw kii nga xam ne mooy Seex Ibrahim mooy ay nu mu ahmad wala nga ne mooy nafsu mu mu mooy nafsu ahmad de fa huwa huwa wa huwa huwa laa farqu baynahuma ñoom tam de lu dul ci tëbb yi rek ak melo yi waaye danga gis ne kii nga xam ne mooy Cheikh Ibrahim dinañ seede ne mooy ahmad waaye gis nga ko moom bàyyi ak tegginam dafa ñëw rek ne mahaani abil abbas yi af naa mahaaniya waaye waa af naa mahaani shawki zal mahaaniya waaw dégg nga ne maanaa yi ma wax yëpp mboolem maanaa ahmad tijaan yi noot na maanaa yëpp waaye sama maanaa cofeel noot na yooyu le maanaa de fekk loolu rek la ñu bëggoon a firil waaw su fekkee nag ne dangaa nekk ci xadara Cheikh Ibrahim bi waaw bëgg wax na yaa koy réglé te Baye dafa wax ne fa laysa li muridi xayru zalwali maa rasul suma mawla ali maa daama xayrum fi xal bi la yanaalu maarifatu mawla ñeelul taaliba bi lu dul waliw bi ak yonent bi mu topp boromam bu kowe bi ñeneen ñoo saxal ci sa xol bi bàyyi nee na doo am maarifa bu kawe moo yow sëriñ bi woote ne yaay rek lépp yi bàyyi bii moo fan la la bàyyi tuddee fan la la xadar yàlla bi tuddee su fekkee ne li nga yilif fii rek la yam ci ndakaaru lu ëpp ci àdduna bi xamuñ sax na yow am nga ma ne soo demee ku mel ni Cheikh Ibrahim Ousmane Dam Fodio gisoon na ko lu ëpp cent ans avant muy juddu soo demee Soudan ak Tchad li fa taalibe bàyyi di waxtaanee léegi mooy ne diw ñëw na ci jamono judduwaat na mu nga juddoo réew sàngam dina fi am juróom fukki at lii mooy doon mission su fi jógee fare la jëm ñu ngi toll foofu xamuñ la xamuñ sax na juddu nga yow kenn bindu la kenn annoncé wu la nga ñëw taxaw na yaay réglé Cheikh Ibrahim bi ma ne woote bi bëri na ci faylu bii caaxaan yi bëri na ma ne mbir mi bàyyi la am na yoo xam ne caaxaan kese la ak ay organisation nit nag mën ngaa organiser ba mu baax ngay am alal mën ngaa organiser am du neex waaye nag ngir yàlla dimbaleel jaam yàlla yi ngir yàlla moytul te ñun gëstu nañ tam ci tasawuf ne képp koo xam ne yaa ngi woote wone yaa yenu mbóot mii man de waxuma kenn lu moom de waaye daal li mën a xew mooy képp ku ko yenu te fekk ne du dëgg suñ la xoolee ci baatin dana bëri looy feebar te loolu lu jara moytu la te kooku mu jëm du baax mukk ma ne mbir mi bàyyi la ak lu mën a xew bàyyi moom dafay jógut waaye bu fekkee danga ñoo bëgg a leeralal am na lu taxaw sa kanam te xay na beneen yoon danañ ci ñëw bàyyi wax na ne wa in jaaruhu laa insa fa innahu min min ummatin tahkiifihaa du fi'luhu waaye loolu tam war nga ñu koo leeralal su fekkee yow yaa ngi rek lay xadara xadara bii nga xam mooy xadara Cheikh Ibrahim bi wax na ne fa yaati masi wa rijaalu rijaaluhu bi diini imaamul aasimu yota daynu naalika amal fayda waaw mu ne lan tara siwaa aarifu billahi loolu tam war nga ñu cee dimbale bàyyi wax na tam wa inna lazi raddaka li moo liw mii sa yar jawni lil mun hamina bàyyi wax na ne xale bi delloo loon yaayam tontu ba euh, ca berse ba mujj na dikkal ma man bàyyi mu ne su ñëwee danaa kontaan ñu ne ko lu tax mu ne ngir nga am ci man safara mbëggeel yaa ngi may fekk réewu xeesa ma ne fuy réewu xeesa di yëpp ñun soxla nañ nga dimbale ñu ci ak kum mën a doon woote bi yëpp bakkan la rek yàlla yàlla musal ñu ci loolu yàlla yàlla def ñu dëgg-dëgg taalibe bàyyi